suis désolé vas-y. vas-y rek maanaam les joueurs dégg nga yëpp ñu ngi toog di nu déglu mais ma ngi nee maa ngi koy gis mu ngi may woo nii. waxal demal demal. kilifteef si jamono yii nii. lu lu mësul yomb sax. du yomb de. waaye lu difficile la. fi mu ne nii. lu difficile la pour la bonne et simple raison. Eh, ah. dafa am. Euh, ay mbootaay yu bees yoo xam ne ñoo génneetul seen loxo ci famille yi. Mm-hmm. et ça complique tout. Mm-hmm. soxna si dafa wax sànq li ma ci retenir rek. Mm-hmm. moo di ay ay ay ay soxnaam nangul ko ko. waaw waaw mooy juróom waaw. nangu waaw. loolu mooy différence bi léegi di waaw ñu bees ñi dañoo nangootul. waaw. nangootuñu. ma ne ko démb mu ne ma waxuma démb tey laa wax. très bien. le présent sort du passé. loolu la wax de. ali ma wax sànq. Mm. ne ay jabar daal boo leen mënul yor. loo ciy duggee loo ciy duggee. ah Alima. Alima xanaa xamoo ne. Mm-hmm. yàllaa ngeeg loo xam ne. Mm-hmm. su la joxee loo yoree ñetti soxna ku nekk këram. Mm-hmm. mi ngeeg loo xam ne bu la ko roofee ci trois mois. kër yëpp eh, situation imposée wu pour nga dajale leen. yàlla mooy joxe. nit dugg na ci lu mu mën. yàlla roof la loo xam ne bu ñu dawalee juróom benn weer dootoo ko mën. waaw waaye bu bu la. mais góor bu demee bay dajale ay soxna. war naa am as tuut du mu leen mën a xam nga luy dab la. waaw non non même bu dabee. waaw ndogal même bu dabee. le le fait il est là. le fait il est là. Ah, mais ma bëgg wax mooy. mais est que duñ dama ne la ma wax mooy. c'est-à-dire li ma bëgg a wax. Ah, kay dëgg. s'il vous plaît da ngeen mbay nee na soo yoree ñaar fukk doo waxaale taxi li ma bëgg a wax mooy. dafa am lu gën a fondamental moyen yooyu ñuy privilégié ndax ndax am saxul. dafa am loo xam ne. Hmm. li li nga xam ne mooy stabiliser kër. Hmm. ci ci ci ci yaram lay nekk. Hmm. foofu laa bëgg ngeen déglu ma ma waxee foofu quoi dama la bëgg wax ne boo ko tegee ci moyen mën naa ko mën dafa saxul mais liy nekk ci yow li nga xam ne moo lay stabiliser si yow lay nekk kilifteef googu ki ko ki ki ñàkk da koy am ki mën da koy am xale yi fi nekk di lëmbe réew mii nga xam ne boo déggee seen ay soirée ak seen ay piscine piscine party ay boro yu barke lañ seen i jur dañu am ay moyens. Hmm, bu ñu dégloo seen ay ayisement sa loxo dem gémmiñ. loolu laa leen wax. foofu lay waxee. c'est-à-dire du mën naa ko rek. Hmm. que dama war a réussir. Hmm. nit ñàkk ñàkk nga ko gën a mën réussir ko kilifteef encore une fois. ci ci nit lay nekk. dama wax sànq euh, Mouhamed sànq dafa wax lu am solo. sa à dire dugg ci kër gi say ñaari doomu a jotee. yàgg naa ko wax. ñaar ñi jotee sa jéey lañ sant. ñi leen jur sant ñu jéey seen yoon nekku ci. Eh, maa koy lijjanteeg samay doom man ñaar ñi jéy lañ sant mu neex leen mu naqare leen jéy ngeen sant ñii nag bu leen neexee ñu sant madame jéy bu leen naqaree bu ëllëgee ñu sant madame keneen waaw yéen nag mu neex leen jusqu'à la jusqu'à l'extinction du soleil mooy li Thione ko doon wax suñu ñaari yaay bu ñu jotee suñu yoon nekk exactement ñoom bàyyi leen fi indi fu ñu mën a lu ñu mën a def boobaa nag waaw yow ki mën a da ngay mën a yow sa fees sa place ba ñoom ñaar ko ci nekk xam exactement dégg li mu war a dégg. ba loolu dootul amati. yaa ngi may dégg ndax ñoom li ñu bokk ñaar ñi leen jur bokkuñu ko. ti comprends ce que je mais li ma bëgg a wax rek moo di yombatul instant bi nii ndax comme li ma commencé sànq association yi seen bopp. association des nangam association de nangam association des nangam association ceci suba bés bu nekk association ñoo génneetul seen loxo sax ci yar yi. loolu tax mu compliqué. donc léegi faute boobu jox association yi. Ah. yow ngay borom kër association association di ma question da ngay bàyyi ma tontu. Eh, bàyyil association yi chaque jour association. association association boo question da ngay bàyyi ma tontu la il faut avoir le courage d'écouter ma réponse am solo nga mes. dañu ne derrière derrière chaque grand homme. il y a une grande dame. derrière chaque borom bene nopp. il y une dame dangereuse. qui est déggu leen ma de. c'est une évidence évidente. derrière. derrière chaque grand homme. il y a une grande dame. derrière chaque borom benn nopp. il y a une dame dangereuse. Ah, waaw. donc ah, su la ah. yàlla joxee boobu mission. parce que boo jiitee njaboot te yow ëppoo leen xel yow. mais ça veut dire que yow la ñuy manipuler yow. manipulation bi ci yow lay mujjee. waaw parce que il faut quand même. nit ki euh, nu ñu koy waxee. ku la sut njool mi nga koy wax. Mm-hmm. parce que da ngay fees sa parce que wax naa sànq sama biir yi wax jiitu taxul a nekk kil jiit jiit jiit taxul a nekk kilifa yombul musul yomb te du mës a yomb d'ailleurs ñàkk yomb gi sax moo tax yàlla di la wax non sàmm di la di la tegal contentieux non sàmmee woon parce que tant que yaa ngi jàpp sa bopp ne dinañ ma laaj nu ma sàmmee woon doo ko defee ni mu la neexee mu gën a compliqué léegi nag bi nga xamee ne dañuy boole aaroon ak maaroota di jaxase. sous prétexte que woy kii diw dafa am ay droit diw dafa woy d'accord kilifa dina déglu kilifa dina dina dina dina am sagesse dina def lépp waaye dag day am fulla am fayda parce que façon kilifa yi ñu bëgg a formanté actuellement nii ci réew mii yaa ngi dégg mooy façon kilifa yi nga xam ne fulla geeg dayo ak ak martabay kilifa gi dafay des titre bi lan la ñu wax wala sax du fa ne. doom bi lan la ñu wax. dama ne doom am ñu titre bi. ngir yàlla. surtout problème bi du loolu may man man man li nga xam ne dama ko bëggoon wax rek mooy gis nga euh, Prospect peut-être dafa gis ay peut-être hmm. association de droit mais boo jëlee alxuraana. Ah, c'est là. mooy meilleur juge. mooy meilleur médecin. mooy meilleur avocat. te droit boo gis. allez ñu indi ko ne association fekk na ne yàlla jox na doomu aadama dayoo ak cër ba mu yellool xanaa kañ ñun ñoo nekk di dagg cër yi ku ne di def lu la neex boo paree nag bëgg ko làqatu ci ginnaaw association yi mais respecté doomu aadama ak respecté jigéen bi ko yàlla di wax boobu benn tubaab ju dogul laay introduire boobu aso amul maintenant dama bëgg papa sànq maa ngi lay wax ne la confort mm-hmm. bokkul ak affection ak attention xam nga xam nga li tax ma wax ko xam nga lu tax ma wax ko <laughs> nit dana am problème ñëw ci yow nga xam ne ndeysaan way juram manqué lu ko dara dara dara ko maanaam confort oh. kan moo ne bien-être papa oustaz voilà dama ne mais mais kontaan naa ci français bi wallaay dëgg la confort bokkul ak bien-être ahmada si jamil mhm. sama baay bii ci Fass mhm. moo ma ko wax bés ni ma Mouhamed confort waaw ak bien-être duñu benn billaay dëgg la sëñ bee ma ko wax ma jàpp ñaari baay bi ak contexte bi mu ko waxee euh, euh, euh. loolu nag sa xam-xam eggu fa maanaam journaliste rek nga yem maanaam oustaz Mohamed bu muy nekk day yëkkati kàddu yu am waaw Mohamed Mohamed mais comme sa xam-xam eggu fa bu ko àtte may la may ma ma daaneel xam nga lu tax li mu wax daf ñuy topp ba yowmal xiyaam ndax nit dana am lu nekk nit dana am lu nekk malheureusement euh, temps bi xoj nañu mais li ma bëgg wax mooy confort ak attention ak affection du benn bu ñu koy wax mooy jamono day dox woy juru tey nañu xam ne xale yi dañu am longueur d'avance ak technologie bi am léegi donc nañuy waxtaan ak seeni njaboot ngir technologie bi bañ leen jiitu ci ñoom loolu rek la euh, Voilà, on parle de sagesse et sens de su gaawee ñu dem parce que waa régie ñu ngi teg ah pression aliment laama laama couture laama nekk laama boutique. laama boutique marché HLM laama. d'accord moo ñu solal. Euh, waaw moo ñu jox basin bu rafet bi. Mhm. mais Pape Mbaye sama tëyër fële ca. Euh, oh. jam ñaajo jam ñaajo jam ñaajo Pape Mohamed suñu teer moom moo jaar ci mu taay moo ma yor ñëpp a ngi laaj na ku may ñawal Pape Mbaye jam ñaajo Pape Mbaye la fële ca jam ñaajo mais la ma boutique marché HLM moom la macha allah kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu bu baax Mbaye Fall jam ñaajo maa ngi leen nuyu waa jam ñaajo yëpp oui on te retrouve bientôt inchallah kontaan nañu bu baax euh, ci wuy si bi nga ñëw si merci beaucoup. waaw ce ce fut un plaisir bi may ñëw ragaloon naa torop et tout. mais non y a pas de quoi. <laughs> Ah, waaw waaw mais vraiment vraiment vraiment c' c'était une émission sympa ma leen di sant ku si nekk si tur ak santam. jërëjëf merci Benoît merci à man laa allemand bi ci émission bi di doore rek. pas allemand bi ci émission bi. lu ndax ci man. pa allemand mi ci émission bi waaw moom ne mooy pa allemand ah, pa allemand bi ci émission bi rek mujj émission man man ah. man lu ma jotee ak kenn fii du plateau ah? fii du plateau ñeexum ñebbe fii du plateau ñeexum ñebbe bu plateau bi day waaw du plateau ñeexum ñebbe de daaw baren koy daaw baren daaw mën naa laa waatal ci barka borom toi daaw baren bugaan mi ngi koy waaj mais du ñëw billahi wa ah waxuñu ko fi. mu ngi bu ñëw gis-gis. waaw. waaw. Mhm. ah yabu ko de yabu ah. ko de. ndumbelaan ak yooyu bokkut ak fii de. Ah. loolu lu leer na ñëw. boo mën ànd naa si. dama ne na bugaan ngay dani ñëw toog. bu bugaan bu ñu koy invité bi na ko ñëwee wax dara. nga ne ah. boo ko xëy na suba na leen dàq. ñu wax rek li mu doon mu dax bugaan melul noonu bugaan melul noonu dalay tooñ bugaan melul noonu. bugaan su ñoon du ma ko laaj. dalay tooñ dalay tooñ. gis-gis. dina ñëw dina ñëw moo tax suul da ngaa sañse maa ngi ñëw ci yow. ayca di ci profité maa ngi ñëw xadi wàdd la waaw maa ngi ñëw xadi wàdd. maa ngi ñëw jox la maa ngi ñëw maa ngi ñëw waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw papa xadi wàdd. ak mbaxana mi euh, euh, ak mbaxana mi. waaw waaw ak mbaxana mi c'est xadi wàdd. waaw ñu ngi ñëw maa ngi ñëw léegi jox la nga remercier ñu la solo. d'accord on va le faire correctement. Ah. on va le faire correctement. Benoît s'il vous plaît. s'il euh, vous plaît dimbali leen ma heure bi jot na lii mënuma ko continuer. s'il vous plaît waaw papa maa ngi ñëw ci yow maa ngi jégalu maa ngi ñëw ci ci léegi ci yow léegi nga décortiquer ni sa sañse <laughs> incha allah. ma jóob papa maa ngi ñëw ci yow. daaru buxti lunette ma jóob. waaw maa ngi ñëw ci yow. waaw waaw ak sëñ Modou xam nga ma xam nga ma jóob daaru buxti. daaru buxti lunette sëñ Medoune Seye. waaw ak sëñ Modou. waaw s'il vous plaît. papa 4-4 mm. bi yàlla ñëw ci barke ah. alxuraan 4-4 bi. 4-4 bi yàlla ñëw ci barke alxuraan. bàyyi leen jàpp nga ne 4-4 bi. maa ngi la koy ñaanal yàlla la ko jox. <laughs> barke borom ah, alxuraan. Bougane dara jëy borom Tuubaa ñëpp ne ramat na ko def. ne ramat na ma jox 4-4 Bougane wax na ko fii. waaw million sax baax na ah. deux deux sax doo ko laal. ah non da ngay dé da ngay déglu nag. lu ma def waaw d' accord noppi ah. naa. waaw noppi naa lii waaw waaw noppi naa. ndoye ayca noppi naa. naa waaw. waaw góor gi si Dieng. du gis nga <laughs> NBI. <laughs> du gis nga sama nit la. doo noppi après ma wax la. moo géej. noppi ma wax la après benn affaire bu neex xaaral. noppi leen nee na am na lu ko wax. voilà. ah da ngeen nopp ma remercier ki ma sonal ba pare. d'accord allez-y euh, maman Aytima design du côté euh, des Maris. Aytima <laughs> design. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mu ngi Maris Aytima design elle est au 77. 972 50 58 merci Luisa Diandi pour la mise en beauté. Mm-hmm. perruque bi ak maquillage bi jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax euh, papa Modou Gueye héritage moo ko solal. waaw Modou Gueye héritage. héritage couture moom moo ko solal héritage couture. ñu ngi ci 77 mm-hmm. mm-hmm. donc ñu ngi gërëm bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci combat gis bi. comme chaque année. Mm-hmm. Mm-hmm. et kontaan nañu bu baax a baax ki la may chapeau ba ki la may daal bi animé këfal balaa muy jël. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf papa merci euh, merci Safia ñu ngi gërëm bu baax a baax équipe bu gis-gis euh, yëpp téléspectateurs yeeg internautes yi ñëpp kontaan nañu. merci équipe de production bi ñuy àndal chaque jour man nag tey Baye Modou Kane moo ma solal Masata ak Masayer Ndak mu ngi fii en face Massalikul Jinaan ci Colobane ak Cambérène 2 numéro téléphone am nekk 77 218 ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax téléspectateurs yu Sen TV Oustaz Mouhamed Mbaye Jamil mooy tëj ak euh, nabiyen yi euh, grand plateau dina dellu si suba incha allah ak Nen Aïcha comme chaque soir waaw Alima comme ni nga ko waxee rek suba maa ngi am Cheikh Sadbou Samb bu waaw man nag bi ma dalee taxaw eh, bi ma dalee taxaw grand plateau ba léegi waxtaane gu ma njool màkk nii rek laay def mais même bu ñëwee suba insha allahu nit ñi dinañu yëg ni Sénégal ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lanu Sénégal Ousmane benn seconde gërëm li ci des way ko rek ñu daal di ko tàggoo